monsieur le ministre ah. donc euh, on va regarder un petit peu dans le rétroviseur parce que ça fait une heure de temps et plus qu'on revient sur la même question on en a parlé l'année dernière on est revenu sur la même question mais je vais euh, un petit peu regarder dans le rétroviseur mais très rapidement parce que vous n'avez pas toujours été faut aussi qu'on parle programme et regarde non non non effectivement <laughs> dans ce sens-là c'est-à-dire que euh, voilà. Euh, donc en regardant dans le rétroviseur vous n'avez pas toujours été dinaa ñëw ci wolof bi vous n'avez pas toujours été un opposant dans le pouvoir boo seetloo en 2016 dans une émission de Sud FM euh, yaa ngi doon euh, défendre euh, la passation entre Petrotim ak euh, Cosmos les 60 pour les fameux 60 pour cent ko ñu avancé il y avait aussi la problématique de Tender Oil Tender Oil l'État du Sénégal avait versé 22 milliards nga défendre ko dans cette émission donc à un certain moment quand même vous aviez défendu la ligne de la République pourquoi dans ces deux situations vous avez défendu l'État alors que c'était un, euh, une question très problématique où on disait que l'État un petit peu a signé des contrats léoniens et a permis à Petrotim de faire des transactions à la limite euh, des transactions illégales vous y reviendrez mais sur la l' aspect politique. parce que liñ ci liñ liñ ciy wax yëpp tey. séeréer yi dañ ko dañ ko loo tax seen laaj bi <laughs> nga non man olof nag laa dégg <laughs> dama ko dégg. yaa ngi dégg <laughs> waaw léegi li ma bëgg wax foofu mooy. Ah. loolu pare naa ci léegi dañ parce que dañu soulever ñaari question uh-huh. dañu wax ci euh, maanaam mbirum euh, petrole beeg gaz bi nga nekkee au niveau du du ministère. Mm-hmm. de l'énergie ñu dellu siwaat dugg ci politique dellu siwaat ci euh, li nga xam ne moom mooy pétrole bon moo tax man je l'ai wax naa ci li muy wax léegi yow xëy na di nga ci indi tontu ci 60 pour cent yooyu ak 22 milliards yi maintenant léegi ci wàllum politique da ngeen taxawal benn coalition aar Sénégal ñu bëri amoon ci yaakaar mais tey dañu constaté mu am benn bipolarisation mooy maanaam tey dañuy wax euh, yeewi askan wi Benno Bokk Yaakaar ñeneen coalition yépp dafa mel ni rek il compte pour du beurre te bipolarisation boobu gisuma ngeen def benn effort pour casser ko mooy maanaam euh, defoon ngeen benn entame d'effort mooy bi ngeen booloo ba dem ci élection c'est vrai résultat yi ngeen escompté woon amu leen ko mais nit ñi dañoo amoon yaakaar ci daje bi parce que euh, ñi fa daje moo tax mais benn moment les ambitions et les égos personnel dafa mel ni dafa jël le dessus mooy par exemple ku mel ni cerno euh, Alassane ci élection lu mel ni élection peut-être législative yu mel noonu xëy na euh, ambition yi mën na bañ a feeñ mais bañ mu waajee jublu nag ci présidentiel lañ gis ku ci nekk ci ñoom nag wane ne man nag may mbër mi te loolu bokk na ci li affaiblir seen coalition tey ñu ngi doon xaar yéen bu ngeen dajaloo woon ngemb kenn ci yéen waxtaan seen biir ba juboo ngemb kenn ci yéen xëy na kooku dina mën a kase li nga xam ne mooy bipolarisation bi am tey Mhm. mais yéen li euh, ngeen dispersé woon nii ça va pas régler donc le cette cette cette bipolarisation parce que en réalité de de vous allez être faible parce que Thierno day dem côté Abdourahmane dem côté keneen dem côté keneen dem côté donc vous dispersez vos forces est-ce que tey mënu leen jël seen égo personnel ngeen jël ko teg ko de côté xool nan ngeen mën a ànde mais bon peut-être que c'est trop mhm. mais bu ngeen ko defoon. xëy na sénégalais yi dinañ mën a am beaucoup plus de lisibilité et de visibilité si troisième voie mais fi toll nii y a plusieurs troisième voies c'est-à-dire que la troisième voie est portée par plusieurs fortes têtes ba nga xam ne cette troisième voie est devenue faible dernière question est bon dernière interpellation mooy est-ce que et je reviens sur le premier sujet est-ce que tey boo jëloon réew mi Thierno Alassane Sall da ngay renégocier tous les contrats notamment en pétrolier et xam nga man li ma gëm. ak Eiffage sur le mooy bu ñu buggee casser ñun bipolarisation bi. il faut ñuy wax problème mu askan bi loolu tax man sawaroon naa trop tey ñu wax ci mbir mu xew Kayar. mais dinañ ci wax monsieur le ministre ak Guet Ndar. dinañ ci ñëw. waaw non da ñu xa ñu xuus ci li xew yaraax. xuus yeneen point mais comme dag ma ci laaj tamit foo ma tontu. d'abord fi fi nga fi nga question bu njëkk bi. Euh, damay wax souvent dafa yomb nga toog ne waxoon nga lii te doo répéter exactement lu nit ki waxoon. mën naa la ko defal nak man j'ai la vidéo non non damay damay par j'ai la vidéo. de mon émission objection. Euh, et et de mon émission sur RTS. vingt vingt six août moi je parle d'objection. Atta termine. j'ai j'ai j'ai maa ngi maa ngi moom fii attendez ma wax la rek. bon non. et je vais vous dire. Mm-hmm. parce que booy citer nit. da nga koy citer. 26 août 2016 26 août 2000 loolu laa la wax 26 août 2016 dama def émission objection le matin def RTS l'après-midi. def nga wax nga ko aussi à waaw je peux je peux vous d'abord bu am na loo xam ne leerul seen bopp ngeen di koy répéter c'est dangereux. naa naa ko clarifier parce que chaque fois dama doon ormal tuuti et cetera mais léegi je suis de parler cru parce que vous me dites toujours la même chose. Mmh. Amadou je suis désolé mais ni nga ma cité c'est pas ça c'est pas exact parce que dama toog ne gars yi contrat yi la ma ca xam

tous les contrats signés par le président de la République et le Premier ministre euh, sont dans le site du journal officiel. Il n'y a absolument rien qui soit de nature mystique, mystérieux ou objet de spéculation et j'en passe. Waaw, xam nga da ngay citer benn bout de phrase hors de contexte mais je le contexte encore une fois et l'ai dit dans le livre. Et j'ai la vid les vidéos ici devant moi. Xam nga mun na wax fii li le matin yokk ci lii l'après-midi. Li ma wax de de manière claire mooy man maa génne contrat yi nee leen li mu ngi nii li ma gis li ma gis gisuma ci dara lu lëndëm wax li ma wax gisuma ci dara lu lëndëm saa yi ma ci gisee lu lëndëm man naa ko dénoncé ah gouvernement bi dina ko ma rectifié wu ne man de naa ko dénoncé vidéo baa ngi fi ah je peux vous sortir tout de suite devant tous les Sénégalais j'ai certainement la vidéo ici devant moi j'ai vérifié rapidement. Allez-y, votre parole fait foi, monsieur le ministre. Et vous pouvez chercher sur le site de la RTS. J'ai dit avec à à à Omar Nying, en tout cas moi j'ai pas vu bu ma gisulee nag du ma sos. loolu justement c'est ce que j'ai dit, hein. attendez attendez attendez je je je dis vous oubliez un élément essentiel quoi qui consiste à dire le jour où je verrai quelque chose à l'état actuel de mes informations contrat yi laa gis moi j'étais à l'état actuel de vos infos. defal ndànk. defal na waxoo la j'étais pas à T plus 1. non dafa waxoo loolu yëpp ma wax. man j'étais à T du ñu werante quoi. si vous avez euh, envie de parler vous parlez. non j'étais pas à T plus 1 j'étais à T. non non Amadou vous avez défendu les 60 pour cent. vous la laissez terminer. non mais mais pas laissez-le terminer. Ah. je dis que vous n'avez pas dit un élément essentiel que j'ai dit séance tenante à T boobu. ni que si je vais si jamais demain je vois quelque chose qui soit de nature nature ah, à, à, à, remettre en cause les contrats nous le remettrons en cause après j'ai immédiatement changé parce que je, je me suis dit je ne suis pas le gouvernement je ne suis pas le président mais moi je peux parler pour moi je dis en tout cas moi je vais les remettre en cause j'ai la vidéo je vais vous la montrer après l'émission si je ne quitte pas dites euh, euh, aux, aux, que je raconte des histoires alors instant yooyu on est en août 2016 moi je vais démissionner de mon plein gré en en 2000 en mai 2017 ça veut dire tous ce temps là il m'a fallu tout ce temps là pour xam nan la demee instant boobu laa xam affaire contrat yi contrat optimistique et cetera la découvrir des contrats man maa ko dëpp jox Baye Umar maa ko jox Umar euh, Ñing ak après def ko ci site ministère le problème de 60 pour cent c'était quoi ak des vingt vingt milliards. des vingt deux milliards vingt deux milliards. les gens disaient que gouvernement Sénégal vingt deux milliards la jaaye contrat bi lay am ci contrat bi j'ai dit ku dem ci contrat yi di nga gis ni du vingt deux milliards la ci gouvernement du Sénégal di am ak dix pour cent j'ai dit non ça c'est faux et c'est faux jusqu'à présent. Okay. j'ai dit vingt milliards yi mooy li nga xam ne boo ñëwee ñu jox la ne la. studio yaa ngi nii da fi war a def ay enregistrement ak ay émission mais war nga yow investir ci matériel nangam obligation de travaux mooy ci trois ans yi contrat yi di durée tender ou timis ou keneen war na def minimum de de dix onze milliards ou vingt deux milliards par par bloc comprendre bu ko defulee on est en droit de retirer parce que ñun dañu joxuñu ko ko pour mu nelaw. dañ koy teg ay pénalité dañ koy jox ay ay waaw dañ ko ko jox pour moom mu am ay càmbar yu fa def. wër pétrole wër gaz waaw licence d'exploitation bi waaw di jéem a wër pétrole recherche pétrole wala gaz bu toogee nag di xaar bañ a def dara. mun nañ ko nangu. Euh, alors monsieur le ministre xaaral ah, ah, ah, xaaral sur yow yow nee nga les 22 milliards da ngay continuer. di ko di ko weddi non non non non c'est pas lire des choses. non je lis pas mais est que vous est-ce que vous maintenez toujours euh, euh, l'extrait de votre émission l'extrait si Petrotim savait de manière certaine qu'il y avait du gaz d'une quantité importante à cet endroit jamais à mon avis il n'aurait cédé à Cosmos pour cent au moment où Petrotim cédait 60 pour cent de ses parts à Cosmos il n'avait aucune idée du potentiel mais particulièrement de la découverte qui allait qui allait venir deux ans après sinon il aurait mobilisé ses ressources pour par ses banques euh, pour financer cette découverte. vous maintenez ça xam votre problème. c'est que vous voulez coûte que coûte au lieu d'écouter l'invité et de lui de, de le suivre dugal ko ci pax. ma dugaluñu ko ci pax dañuy laaj rek est la ñu da liir ba pare ba ma lay ba ngay liir kontaanu ma de même dama la déglu donc da ngay déglu ba ma pare après on va passer à autre chose ça je l'ai écrit dans le livre et je maintiens que Petrotim ne savait pas ça. d'accord c'est-à-dire que vous voulez me faire changer alors que vous n'écoutez jamais chaque fois que je passe ici je vous explique je me tue c'est pas possible les gars c'est pourquoi c'est pourquoi je termine je termine sur cette explication définitivement après basta on revient plus je dis dañ leen di jox contre 22 milliards avec Petrosen qui pour cent maintenant quand on découvre du pétrole et du y a une clé de répartition à l'article pour cent 65 pour cent si a extra bon les gars qui disaient que Sénégal 10 pour rek la ciy am je dis que c'est pas vrai les contrats que j'ai vus c'est pas ça qu'il a là-dedans bien je dis et je l'ai écrit dans le livre au moment où Petrotim en ce moment vendait à Cosmos il ne savait pas qu'il y a du pétrole et du gaz c'est quand Cosmos par contre Cosmos le savait certainement Cosmos le savait euh, certainement mais man en ce moment non plus je ne le savais pas. et ceux qui ont poussé Petrotim à vendre à Cosmos aussi ne le savaient pas parce que Petro Cosmos dafa nekkoon Mauritanie di wër gis ni que ah lii kat ñëw ba ci frontière bi waaye mel na ni dafa jéggi frontière bi naa dem ci gaayale jéem a xool naka laa leen di kii waaye ñoom du duñu wax sénégalais yi ak Cosmos euh, ak Petrotim li nga may jaay lii kat njëgam ay milliards la. da koy bëgg a jënd à un de prix li may reproché Petro-Tim mooy justement mais loolu wax naa ci ba coow loolu commencé Abdoul Mbaye wax ci ma ma tontu ci ci sama xam-xam fu mu toll woon ci loolu wax naa ci téere bi ci fu laa commencé nag di gëstu mbir mi ba ma laajee sama gaa yi ma wër kenn ci ñoom nangu moo wax ni inspection générale d'État jaaroon na fi 2012 loolu xaw ma koon kenn nangu moo wax extra extra mais gëstul sama bopp di xool di gëstu ba reconstituer puzzle bi ba ma reconstituer puzzle bi nag laa ni 30 pour cent yu timis dese nañ ko nangu te loolu bind naa ab bataaxal président ne ko nañ ko nangu nañ ko foqati xool nañuy fexe la mu njëkkoon rawale nan lañ koy jotee ndax loolu ba na mu ko amee dëppawul ak yoon ci sama gis-gis boobu man gis ma rapport IGE bi donc mbir moom dafa war a leer mooy li ma waxoon li man mm-hmm. 26 août 2016 RTS nii saa yu ma gisee loo xam ne parce que question boobu sax dañ ci nii Aliou Sall li mu nekk ci kii bi mbaar du problème moi je suis honnête je transparent man leen loolu ça semble être le problème qui gêne tout le monde mais jour bu ma gisee ni moom li mu fi nekk walla beneen problème am na ci mën naa ci am taxawaay ba ma war a am est ah. est après awma ci taxawaay ba ñu mu war a am loolu mooy question bi am naa ci taxawaay ba ci ba ma ci war a am ci la ma foog. mais cet éclaircissement fait euh, ñëwal ci euh, la question de Aar Sénégal concernant Aar Sénégal. mais vous êtes d'accord avec constat laa def à da nga dagg da nga dagg sama wax yi moitié ni lii la foofu. ñëwal ci doon nekk avocat timis ce que je voulais souligner monsieur bàyyi ko mu mu jàll. xool avant qu'on passe euh, au second point c'est-à-dire que li ma bëggoon wax foofu mooy à un certain moment vous aviez eu même si on vous reproche à un certain moment cette ce manque de solidarité gouvernementale à un certain moment vous avez eu cette solidarité gouvernementale c'est-à-dire que moi moi mon point de vue est dans ce sens-là c'est ah, l'entendement à dire qu'on vous a posé une question non attendez je vais finir on va se comprendre ah, c'est-à-dire qu'à un ah, certain moment <laughs> non non non nañu terminer mu continuer mais non j'ai le droit d'éclaircir mes points de vue quand même parce que il n'a pas compris ce que je voulais dire c'est j'étais pas dans le sens de vous mettre dans au banc des accusés mon propos je le reprécise ah a compris mon propos je le reprécise xam propos la xam nga lan c'est-à-dire que dañu yàgg neen Thierno Alassane Sall c'est un rebelle dans le gouvernement ma ne moom ci boppam à certain moment il a défendu la ligne du gouvernement ah, loolu laa bëgg a wax foofu c'est-à-dire que benn moment défendre nga la ligne du gouvernement mais réserve boobu nga indi mooy bés bu ma déggee mais il n'empêche moment bi ñu la ko laajee ak niveau d'information bi nga amoon défendre nga la ligne du gouvernement on est d'accord Amadou je vais ah. aller plus loin bala may ñëw ci Aar Sénégal après nag naa leen sànni xeer ci Aar Sénégal bu ma di tontu je vais aller plus loin. gis nga ba ñu njëkkee ñëw au pouvoir boo xoolee am na ay dossiers. Mm-hmm. comme dossier wu yu nekkoon yi man maa gënoon monté au CREI non moi j'ai toujours défendu mon équipe. bu ma bokkee ci équipe dama koy défendre à 1000 pour cent mm-hmm. est-ce que man Mansour xam nga loolu. <laughs> def naa fi conférence de presse mm-hmm. yaa ngi fàttaliku. sur le dossier Karim Wade ak yooyu ci CREI. wax ci Fraport Daport wax ci ay ARTP te très parce que on avait été élu sur la base de la reddition des comptes gars yi bëgg ñu commencer di di critiquer processus boobu ñu tàmbale woon ci kenn ma gëmoon ni nag ñëpp dañu war a jàll ñu am benn puissance de communication boo xam ne néewoon na ñu sañoon monter au créneau ci jamono yooyu dem défendre dossier yooyu moi je fais partie de ceux qui ont défendu ba ñu fi Idrissa Seck doon tacler j'ai monté au créneau parce que je croyais encore au projet je croyais encore que li ñuy def nii c'était la bonne chose quand j'ai commencé à avoir des doutes ma teggi sama